chef de village bi mais aussi di nuyu notable dëkk bi yëpp ah di remercier El Hadj président association bi le fait que vraiment mu invité ñu si journée bi mu nekk journée bi nga xamante ne journée bi ñu rafetlu la ndaxte lu tax ñu rafetlu ko jeunesse su Malicounda dañoo soxla lii lu tax ma ne jeunesse su Malicounda dañ koo soxla ndaxte moom dem na génn jàngi dellu si mu ne day jàppale ay rakkam loolu lu rafet la ak équipe bi nga xamante ne moom la àndal yëpp maa ngi fi fekk léegi càndum maa ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu aussi suñu coordinateur càndum bu fekk fii tout leen wax na rek effectivement l'éducation dafa nekk loo xamante ne lu am importance la te yéen jeunesse su Malicounda yéen ayu avenir u Malicounda demee comme ni ko El Hadj waxee sànq soxla nañu ay cadre ci façon boor bu nekk kon aujourd'hui su ngeen organiser lii ñun lépp li nga xamante ne dañ sew dañ sew dañ sew dañ ko war a def même wala loo xam dañ ko jàppoon sax dañ ko bàyyi ñëw fekk si leen moo tax vraiment ñu ngi leen di remercier di leen wax ne bonne continuation ñun ñëpp ay doomu Malicounda lañu dinañu fexe aussi fi ngeen nekk Ndakaaru ñu nekk fa ñun tamit ñu xool nañ lañ leen di mën a accompagner pour li nga xamante ne moom la ñu soxla si biir Malicounda mooy l'avenir Malicounda bi ñu ootee mu mun a réussir kon loolu rek laa si doon wax maa ngi leen di remercier di leen sant et bonne continuation